jëw euh, la noté nañu ko noté nañu ko euh, le ministre Gallo Ba defaraat na la situation parce que fekkee na rencontre wax nañu également li maire Sadio wax aussi dégg naa ko parce que keroog bi ngeen demee ci président bi mu paree wàllu aussi déggoon nañu ko muy travaux yi ne waroon nañu ko def rawatina ci yoon bi am nañ yaakaar ne ci budget deux mille vingt trois bi ko jël nañ ko ci déjà en compte wax nañu pour programme pays yi Touba ak également PUDC PUDC effectivement je sais que première phase PUDC ci donc waxoon nañ finalisation bi Thiatou Mbacké aussi ñu waxoon ne je pense que les travaux sont en cours promo bi promo bi mu jéem a jéem parce que jéem moom su ko jéem Touba ngeen jàpp parce que muy jéem promo bi mu jéem Touba ngeen jàpp dana mu jéem. mais c'est en cours mais li ngeen jàpp ñaata mu jéem a mun a ko promo bi la wax promo bi ak Touba bii di bëri lu war a wàññi sax daal di ko indi beneen waaye trop bi doon kenn ëpp yu ëpp yu kenn ëpp yu financement des femmes aussi déglu naa ko fi wax ko ci benn point électrification ak extension dans le monde rural ay dans la périphérie de Touba périphérie Mbacké donc loolu moo doon préoccupation yi dégg nañ ko gis nañ ko danañ ko yeggee ma wax ne wax naa ko ndaw yi li ngeen wax dégg nañ ko mais jàpp naa ne war nekk condition pour la vente des ah, mooy carte euh, yi ñi ko bëgg bëgg ci accéder ñu mën a fexe bi ñu am loolu mooy li tax carte yi am du tere ngeen wax seen i ñax du tere waaye carte ñu waaw waaw ñu am mbégte dañ fi ñëw ànd ak superviseurs yi nga xam ne ñoom la président Macky Sall désigné pour département de Mbacké muy man ma ànd ak euh, Dior Thiam ànd ak président Baba Ndiaye euh, DG SICAP euh, Mamadou Kassé également ci la bokk ak ministre Mamadou Lamine Keita. ñu ñooy cinq superviseurs yi ñu ñëw fii lancé carte yi wax lu ñu solo si ndaje mi mission bi nga xam ne la ñu suñu génnee ci lii commissaire dana ñëw pour effectivement di jaay carte yi wax nañ waa département de Mbacké la mooy seen quota ci carte yi war nañ ci jaay quatre-vingt-trois mille cartes commune bu ci nekk wax nañ ko li mu am c'est vrai que ndaje mi neex na xumb na parce que permettre woon yi ñu am yëpp kenn ku ci nekk euh, ñu jël kàddu wax nañ li nga xam ne lii moom la ñu ci mbir mi dégg nañ ko doléance aussi wax nañ ko noté nañ ko bu neexee yàlla dinañ ko yeggale président te am nañ yaakaar ne saafara dana jàmm